ñom dañuy wër dëkk bi rek lu ñu ne ñu ne ñu ne état ko fi andi ma da leen légui yeen kan moy seen état état da nga mas nga tok ak état di añ ak mom mas nga ko may jabar mas nga ko gunge ci takku jabar état dafa am bët ak ay nopp ki tank di dox 1960 état amu fi won 1960 ba légui état wo ngi ci dëkk bi biñu amé indépendance ba légui état nga fi mais état dafa am ñuy dem di wax ak ñom suma ñom bay mbayum ak ñom bay Ndiol dañ daan poña gañi ne len tiajay manke na li andi len ko fi ñu andi ko fi ñu loy état ku dul waxal sa bop di demal sa dekk di xex ca kaw di andi do am li état di jariñaate man bima nekké ministre des collectivités xalé yi jambat ma lycée ma dem ci sen fosco ñu jambat ma lycée la jël 350 millions ci budget fonds d'équipement des collectivités territoriales ne caajaay par force dafay am lycée ñu commencé tabax lycée bi lycée boobu bu soobee yàlla lycée Amadou njool Gaye ca caajaay lay tudd kooku bu soobee yàlla conseil municipal bi dina ci def délibération

ñoom Baye Yoro Ndiaye yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom da daan taxu këram ñu defar ko def fa ouvrage d' assainissement def fa place publique loolu doy na bilan centre socioculturel bii ñuy defar te léegi mu pare ci weeru novembre bi ñu pare ñu inauguré ko doy na bilan stade bële xale yi di football doy na bilan hôpital bii nga xam ne plus de 200 millions laa ci def pour relever plateau technique bi doy na bilan mutuel de santé yi nga xam ne jigéen ñi ñëpp. ñi ci bari ci comité dañu jël ay téméré jigen defal leen mutuel de santé xalé école primaire yépp ci tiajay 4200 et quelques élèves ñom ñëpp ils sont mutualisés lolou doyna na bilan li ñi baña dégg nak moy tank état tiajay mu ngi fi dox tiajay day dem ci kanam motax programme bi di ñëw dañu né li ci lañu andi lon 2014 ñu né waw mané ne bi di ñëw inshallah bo boo ñu falé université lañu andi fi tiajay marché bi plus de 75 millions lañ ci def tay biñu démé ci marché bi maire yek gor ñek jigen ñek Ibrahima Ndiaye ngi sara xol ndax liggéey biñu def ci ci marché kon ñun loolu lañuy liggéey liggéey wuñu kenn ñoo kenn démocratie lañu wax ku mu neex nak nga yuuxu fu mu la neexé ne man bëgg na waye nak ñun ñi ñi wo ci kay leen le ma kay leen jappalé ma nañ and ak suñu xel nañ and ak suñu xel xam ne balaa ngay tànn bu dee démocratie la ñu wax sa xel nga war a tànn démocratie kenn du tànnee xol démocratie kenn du tànne ak matadi sinon kon nekkatul démocratie jungle lay nekk nañ leen xool bu baax nan la ñuy tànn ñii ñëw di laaj seen kàddu mais laaj leen lan lañ def ci caajaay man de man maa ci gën a nekk xale ci candidat yi ñoom ñëpp ma mag waaye ku ne na indi bilaam teg ne man bi mu juddoog léegi lii laa def caajaay ñu teg ci loxo nañ ko génne rek ndax xale yi ci nawetaan kan moo leen ci jàppale kan mooy jàppale étudiants yi fële ci Dakar 2014 sëñ Mor bi may ñëw fii ci commune bi subvention étudiants yi 500000 la woon mooy téeméeri junni balaa ñu ko doon jot dañuy ñëw ba fii def manifestation taal ay pneu la subvention est mu ngi 5 millions de francs CFA lolu moy li mairie bi di joxe man personnellement dama len jëlal 4 appartements de 6 millions par année La yi bi may ñew même chose subvention 500 000 téméri juni pour lu upp ñaar fukki ñaar fukki équipe la subvention est de 10 millions de francs CFA kon lu ñu fekk benn yóbbu nañ ko fukk loolu mooy bilan bi nga xam ne liggéey nañ ko te amul wuruj amul tappale amul jaay yëfu jàmbur amul jël yëfu jàmbur amul jaay doole. moo tax ma gëm ne le combat du 23 janvier 2022 caajaay fii formalité la parce que gagné nañu ba pare parce que nag li ñu fi liggéey moom rek la caajaay di fay te lebaluñ leen ngoree di. lebaluñ leen reewande lebaluñ leen ay fen lebaluñ leen ay wax yuy toxu lépp luñ leen mës a wax te ngeen ci seen bët te caajaay nag dañoo jàpp ne dëkku gor la dëkku jàmbaar la dëkku nit ñu takku lañ dëkku nit ñu gëm seen bopp jigéen ñii rek bu ñu ma wotalee man damay tëdd nelaw